gërëm aussi notable quartier yi fi toog di nuyu aussi suñu imam imam Meng vraiment di nit bu baax tamit di gërëm aussi Jibi Diop di gërëm aussi sama yaayu bopp sama xarit di maire Magu di aussi sama camarade de parti di ko gërëm bu baax a baax parce que tamit bu ma naree tudd ay tur damay juum parce que fii samay mbokk laa fi fekk samay xarit laa fi fekk samay am di jàmm laa fi fekk parce que tamit bu ñu nee yëmbal sud dañuy jox cër autorité locale yi fi nekk di teg nuyoo bi aussi di nuyu sama xarit sama frère le maire Bara Gueye di un ami un frère parce que mu ngi fi yebal Abdoulahat Ngom sëñ Abdoulahat ñu ngi jël nuyoo le maire Balla di ko teg sa loxo di ko ne rakkam bu mu yar tafetal ko mu koy nuyu di ko ziyaare bu baax mais ne ko xale bi màgg na nag di nuyu délégation bi ma àndal yëpp délégation bi di nuyu délégation bu ma àndal yëpp ku lim juum di sant di gërëm aussi délégation beneen bi mooy sama ASC muy ASC Disso parce que tamit moom la am moom la ñu tiitaroo moom la ñuy ndamoo parce que tamit moom la ñu malgré jox nañu ASC yi nekk ci zone bi yëpp cër parce que tamit da xam ne léegi Omar nekkatul Omaru Disso kese Omaru Santaan la Omaru ànd jiboo la Omaru neexle la Omaru an euh, sant bi la Omaru ñëpp la donc bu ñu taxawee fii ginnaaw bu ñu nuyoo le président Idriss di ay ndaw yi di am fulla di am fayda macha allah te suñu ñëw fii ki ko waral mooy Sophie tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm dëgg la di gërëm Ndeye Khady Fall tamit di ko sant di ko gërëm di ndey di gërëm kenn Fall di gërëm aussi Nabou Ndiaye bu baax a baax parce que suñu koñ la mais dafa am ay pàcc pàcc ñoom ñoo ñu fi toogal donc ñëwoon nañ fi benn ñëw mooy ñëw taxawaayu nekkoon ci benn mbir mooy eh, inondation yi ñëwoon nañ fi mais tey dañ fay ñëw ci beneen taxawaayu parce que man Omar Sow damay wax ne toujours ci koñ bi laa dëkk fii laa yaroo aw ma leneen lu gëm koñ lu gëm koñ bi donc tey buñ fi ñëwee ci invitation suñu rakk yi di Agirus seen président di Mor Diouf invité ñu dañ fi sawar a ñëw ñu fi ñëwaay politique parce que ñi nekk yéen du politique nee naa tey nambal tànk bu ñu président dénk day jeex mais lu ñu bokk ak lu ñu màggandoo ak lu ñu dëkkandoo loolu du jeex ba ilaa yow mu donc nekkin bi na rafet dëkkin bi na rafet taxawaay bi na rafet wax nay rafet AGERIS ay ndaw ngeen ay ndaw lañ bu ngeen ñëwee ci man ngeen wax ma initiative bu mel nii yàlla def ñu duggal ci suñu loxo dugaluñ ci suñu loxo en tant que dañ cee dugal suñu loxo en tant que doomu gox bi dañ cee dugal suñu loxo parce que dañoo gis suñuy moromu ndaw jóg ne dañuy sukkali seen i koñ donc c'est normal ñu jàppale leen. man de Omar Sow politique lay def mais def ma politique bu salte boobu mooy xasante xuloo ak xeex politique bu may def mooy képp ku ma gis na mën na ma mën a naw ba bu ma ko nee kaay votel Macky Sall nga mën koo votel képp ku ma gis nag ma mën a naw ba mën a xam ne yëmbal mbedd Fass bu ay bandi ñoo fi dëkk ay ay goro fi dëkk ay nit yoo xam ne tekki nañu dara ñoo fi dëkk parce que tamit association moo war a moo mën a dundal gox association moo war a moo war a yëkkati gox te gox bi seetlu naa fi gis naa fi ay ndaw yi am jot ay ndaw yi am fulla parce que hivernage bi fekk na ma fi dinaa ci lim benn ndaw ku mel ni Gilbert am na yeneen ndaw yoo xam ne ñëw naa ba deux heures du matin fekk leen ci ndox mi ñuy xuus donc koñ bi vraiment macha allah gàcce ngaraama ñi ndaw ndaw koñ yi dam leen di dénkaat ñaari mbir man de Omar Sow lu ma nar a am te du ko bokk sama koñ yàlla bu ma ko yàlla may te damaa woor xëccoowuñu dara xuloowuñu dara xeexuñu mais dañoo gëm ne suñu développement koñ dañ cee war a bokk parce que si on ne fait pas la politique la politique va nous faire parce que c'est les politiques qui décident nit ndaw day toog ne man duma politique mais boo politiqueul plus de 16 millions d'habitants ni politiciens obtenu 1 et pourtant c'est nous qui prenons les décisions donc je pense que nous les jeunes nous avons beaucoup de politique pour nous beaucoup bokk ci collectivités locales yi mën avoir bokk ci de décision pour nous soutenir sukkali suñu gox donc parce que nous, les politiciens, la ne ah, parce que nous ko aadoo gis baaxul mais nous sommes sant yàlla dañoo nekk ci weeru nous luñ ci bëgg parce que tamit yaakaar naa ne réalisation yi fi président def te tali bii ñuy xaar incha allah yaakaar naa ne bi yàgg dina am te bi tamit ñu ngi ñaan yàlla mu gaaw a am parce que lii aussi ñu jàppale ñu si ñu gaaw aussi ci projet boobu ñuy def ci affaire inondation ñu gaaw balaa nawet bi ñu ñëw ñuy jëndaat ay alu pompe yaakaar naa ne taluñu ko donc maa ngi leen di santaat bu baax a baax di leen gërëmaat bu baax a baax imam may ma délégué ñëwoon naa fii yàggul ngeen may sant di ma gërëm ngeen ne ma naa wax lu ma bëgg ma ne leen jotagut mais fu mu nekk nii xale bi màgg na monsieur l'envoyé spécial boo demee nga ne le maire Bara Ngom Bara Gueye ko xale bi màgg na fauteuil bi waaw ah ñeen ñaar voilà ma ne boo nga ne Bara Gaye xale bi màgg na imam je candidat à la de Yeumbeul Sud donc nee nañ ku wàllu yaas yi sa sa dëkk moo tëggul wante waa ASC diisoo tëgg waa Pete Fass tëgg nañu waa Kaka Kara mais en tout cas wax ne rek lépp luñ fi def ci wàllu ndimbal ci koñ bi ak ci wàllu ndimbal nañ koy santaate suñu borom dañuy ñaan yàlla yàlla dañu may xel ñuy fàttaliku ñoo xam ne ñoo leen féete ci kaw yàlla may ñu xel may ñu xol ñu bañ a bew parce que politiciens yi ñoo tàmm di bew yàlla may ñu xolu dimbale donc sama gars yi waa bés mi ngi tey dinaa jënd carte membre dinaa bokk ci association boobu noonu lépp lu ngeen def laa la wax de bu ma ci yëgee dinaa ci def sama loxo def ma ko nag ngir politique dafa ko def parce ci yàlla bokk sant naa leen gërëm naa leen asalaamaaleykum wa rahmatulah